salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan tey ñu ñëwaat ci seen plateau c'est politique di ci dalal ki nga xam ni moo di professeur Cheikh Oumar Diagne di ko xamante ni nag kenn doot ko présenté fii si réew mi mu di expert financier nekk nag koo xamante ni macha allah ku bëri kasket la mais tey li ñu war a waxtaanee moo di question actuelle yi yi nga xamante ni Sénégal moom lay traversé nii bu ko defee ñu ngi koy dalal ci suñu plateau professeur ñu ngi lay nuyu. Ah, jërëjëf euh, sang bu tedd bi ñu ngi am mbégte lool ñëw fii mm-hmm. euh, kontaan ci. bërëb bi. di ñaan yàlla yàlla barkeel ko surtout. amiin euh, di ñaan yàlla tamit li na la waxtaanee yàlla def si yiw. Mm-hmm. Euh, ak tawfiix ba ñëpp ñu koy déglu mën si jëriñu incha mm-hmm. allah. Mm-hmm. jërëjëf euh, professeur mu ngi nii yéen a ngi koy gis actuellement fii ci Equivox TV. li ñu bëgg a tàmbaleeg moom nag moo di li xew ci jamono bi waaye balaa boobu ñu xam ki ñu dalal ci kër gi kan la maanaam tey li ñu lay laaj professeur xam naa ni wax ci sa bopp yombul mais kan mooy professeur Cheikh Oumar Diagne. waaw euh, Cheikh Oumar benn taalibe la rek benn taalibe la bu bu sap lool ci bëgg gëstu euh, te sawar di partage tamit li muy gëstu ak euh, askanam donc euh, ginnaaw casquette taalibe boobu daal wax dëgg yàlla xaw ma leen ci man. taalibe daal bi nga xam ne gëstukat laa. <laughs> je suis je me je me réclame daal chercheur. Mm-hmm. Mm-hmm. beaucoup plus chercheur. que mm-hmm. que borom xam-xam. bindkat nga aussi. waaw il m'arrive d'écrire. d'ailleurs semaine bii di ñëw am na benn livre bu war a génn. Euh, bu tudd herméneutique du rêve. qui traite euh, ci wàllu gént. surtout dans la tradition musulmane. mais par rapport à une approche psycho psychanalytique. donc du rêve parce que gis na. naxasaale daal ci réew mi mhm. gars di firi gént mhm. firi comme il faut donc on a voulu un partager li nga xam ne xaw nañ ko fort euh, suñu mhm. parcours par rapport à cela donc euh, macha allah ñaata téere nga bindagum euh, moins de dix ans par rapport à des livres édités disons six ou sept ans. six ou sept pour l' am na boo bindoon bu bëri woon coow la république privée du Sénégal. waaw boobu xawoon na bëri coow lool. Hmm. daawaati jik donc euh, livre buy xaw a retracer un peu l'histoire euh, du Sénégal. Hmm. qui est une construction coloniale. Hmm. et montre aussi que le Sénégal dans ses bases. Euh, a été créé et fondé. Mm-hmm. par des gens qui se réclamaient de la maçonnerie. Mm-hmm. Et que l'ensemble des symboles aujourd'hui actuels, de ce qu'on appelle le Sénégal, mm-hmm. euh, sont des signes et symboles euh, qui sont connus dans la franc-maçonnerie spéculative, en tout cas, surtout celle en tout cas qu'on connaît de la France. Donc, République privée, elle montre exactement que ce pays-là ne nous appartient pas. Parce qu'il y a ben quatuor qui se partagent ce pays, euh, à savoir les intérêts étrangers, yoo xam ne fi ëpp doole ci biir réew mi aujourd'hui notre économie est détenue à près de par des multinationales étrangères rien que la France que c'est à presque entreprises au Sénégal rien que la France euh, tudd may yeneen yeneen entreprise yeneen dëkk yi mhm. donc il y a la puissance étrangère qui est très présente euh, qui est actionnaire de ce pays-là qu'on mhm. uh, appelle le Sénégal. Il mhm. a des intérêts politico-maraboutiques uh, bi nga xam élite la bi nga xam ne qui tient en otage ce pays tamit depuis mhm. les indépendances. donc ñoom dañuy jëriñoo dëkk bi. Uh, te réellement jëriñu ko. et il a des hommes d'affaires très très véreux yi tamit ils sont avec l'ensemble des pouvoirs qui sont passés par là. ils bénéficient des contrats publics des marchés publics. di di seeyal xaalis Sénégal. donc en fait quatre ñi daal. ils sont est une société anonyme. Mhm. à irresponsabilité illimitée. donc euh, <laughs> donc euh, foofu <laughs> loolu jëngal lay gën a c'est comme la jungle. Mhm, day xaw day war. Mhm. léegi professeur li ñu bëgg a laaj tamit moo di euh, jamono ji fi mu toll Sénégal. noo jàngatee Sénégal climat social bi ci wàllu politique ci wàllu diine. Mm-hmm. wàllu mbas mi et tout ça rawatina fan yi rek gis nañ mm-hmm. euh, pëccëxoo bi am ci mm-hmm. wàllu coowal Ousmane Sonko euh, vraiment mu nekk euh, yëf yoo xamante ni vraiment ba tey mu ngi ci dëkk bi noo jàngatee situation bi waaw Sénégal de réew mu metti analyse la man je pense que sax analyse yu gën a mag yi dans le monde ba ñu àndi loon jox leen le cas Sénégal ils auront des difficultés parce que c'est un c'est un pays très difficile à analyser Euh, dama jàpp nag ni l'ensemble des problèmes yi wax sur la sphère politique sociale euh, économique et partout euh, dafa am ñetti mbir yi xam ne rek pour man mooy les bases même et les clés de compréhension de ce qui se passe actuellement Sénégal dafa nekk ci benn dynamique bi nga dafa am benn crise de leadership en réalité maanaam dañoo ñàkk ñun ay kilifa ñàkk kilifa maanaam kilifa dëgg-dëgg lañ ñàkk et moom c'est un c'est un problème dans un pays ñaareel ba dañoo am askan bi nga xam ne majoritairement dañ koo nelawal mm-hmm. maanaam consciente des enjeux du moment. wala da ngay gis ni yi ñuy waxtaanee ailleurs. Euh, Sénégal fii vraiment fii waxtaanu ay nit a fi ne. maanaam dafa am ay philosophie wax ne euh, les grands esprits ñoom. Euh, ils di d'idées. les petits nag ñoom ils parlent de personnes et d'événements en réalité fi Sénégal le débat sur les personnes ak les événements dafa am le dessus. sur le débat d'idées. moo tax en réalité da ngay xool dans la presse réelle. des débats sur la prospective. doo ko fi gis. des débats sur la planification mm-hmm. d'Orpheus. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, chez nos intellectuels amul. chez chez chez nos chercheurs. tu verras pas des laboratoires de conception. on ne conçoit pas. maanaam mhm. ñun nous sommes beaucoup plus des laboratoires mhm. euh, na nee na Sénégal réew la boo xamante ni ku nekk day aye sa njël. Mhm. njël loolu nag ki ko aye fan yi moo di Moustapha Diakhaté. ndax am na kàddu yu mu yëkkati jëmale ko si euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu nekk wax yoo xamante ni euh, dinañ ci waxtaan ak professeur léegi nii. ndax professeur li ñu la bëgg laaj moo di. moom Moustapha Diakhaté kàddu yooyu mu yëkkati ndax mën nañ ko jàppee blasphème. déjà wax ji rek. ndax nekk lu ëpp. waaw euh, safaa Diakhaté man dama jàpp ni il a été victime euh, d'une communication excessive en réalité. Mmh. en fait quand on communique beaucoup. Euh, du ñàkk di nga mm-hmm. di ay kaas. Mm-hmm. trop de communication tue la. tue la communication li dafa wax ne. lépp luy musiba doomu aadama yi. doomu aadama lépp lu métti leen dal rek. Mm-hmm. nee na ñett yi mooy ko nar a yóbbee. seen làmmiñ seen biir ak seen sex maanaam problème yu doomu aadama yi nekk yëpp ñett yi kese moo ko moo ko andi donc mm-hmm. euh, il mm-hmm. euh, wax nag c'est un problème de fond bi nga xam doit euh, dañ ko war a questionner mm-hmm. ba pare jéem ko analyser aujourd'hui dans ce pays Euh, on est, il y a, il a un islam qui est assez cosmopolite. Madame, nous avons des formations et des doctrines dans l'islam qui sont, qui sont un peu différentes d'approche. Mmh, mmh. Nous avons déjà un islam soufi qui est mmh. majoritaire dans ce pays. Euh, dans le tasawuf, il a une perception qu'on a du prophète Mohammed oui. et, et, de la religion. Mm -hmm. Il a un islam qui se réclame salafiste, qui est beaucoup plus proche de la wahhabia, euh, qui perçoit le prophète Mohammed comme un euh, a Euh, ñi koy percevoir yentu saasam euh, avant moom euh, mm-hmm. oustaz Oumar Sall mm-hmm. waxoon na wax yu mel noonu mm-hmm. wax ne papa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi safara ça avait créé une rage extraordinaire man sama bopp maa ngi fàttali bi sax j'avais fait une vidéo sax pour le répondre parce que ma gis ne il a il a des lacunes dans dans la conception de l'islam en réalité donc aujourd'hui li mu wax moom Moustapha Diakhaté même bu fekkoon dafa am sax dafa tegginewul nga koy wax jëmee ko sa kilifa c'est dommage à deux niveaux le fait de pouvoir sur un cas bu anodin mhm. cas saar doon wax ak ay waajur Adji Sarr mhm. ba tabbi ci waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. déjà euh, comparaison n'est pas raison et la et la translation de vraiment n'était pas justifiée en réalité euh, au-delà de ça euh, Sénégal dëkk bi wax ci yonent bi wax lu la neex daf fi yomb moom Moustapha Diakhaté il se réclame de Daaru il est mouride il n'osait pas faire cette comparaison là si ay waajur Serigne Touba xalaatu ko juróom-ñaari xaram xalaatu ko Euh, su doon waa Tiwaawan nag keneen ku mu mënti doon Sénégal ñemewoo jël sa comparaison si ay waajur di wax waajuru Seydi Hadj Malick wala waajuru Serigne Touba waajuru Baye Niass en fait comme que ñoom da nga da dañoo xam ni les talibés vont vont vont mhm. vont réagir mais wax ci waajur yonent bi moom mhm. c'est sans punition et sans effet parce que mhm. fii si dëkk bi la réalité que je que je que je dis toujours et que vraiment ñu bëri du leen neex mooy que dëkk bi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fi bëriwul talibé amu fi défenseur fu mu choqué mhm. alors que suñu caricaturé seen sëriñ dañuy jug génn mhm. kuñ ci wax sa sëriñ diw jaral na la dee xam nga da dem ba à la limite da ngay tuta da ngay question mhm. est que jàngal nañu nit ñi seen diine Mhm. Sénégal kese ngay gis kenn ku taxaw nga ne ko yonent bi moo gën sa sëriñ mu mer la lu tax nga may wax loolu. Mhm. Mhm. justement professeur foofu le problème de l' enseignement pose problème l' prophétique. parce que li ñu gis moo di. bëri na bu ñu dalee ci yonent bi ñu jug kaas ñaxtu ñaxtu après dafay amaat. du am suivi sax. maanaam kon est jotul tey ñu jàngal nit kan mooy yonent bi. waaw euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama jàpp ne damay gis ñu bëri a créer la sunna taalibe yi seen taxawaay ah, ah ok yaa ngi tolloon si taalibe yi nga xamante ni souvent ñoom dañu woote woon ni taalibe diw lañu mais xamuñu lu diw moom moomu jàngale rawatin li mu bind ci yonent bi. effectivement xam nga taalibe. Mhm. nekk taalibe lu jafe la. Mhm. moom dafa dafa dafa difficile. fii mhm. Sénégal dañ ko jël yombal ko. Euh, tarixa benn dafa mel ni kuy liggéey si entreprise heure supplémentaire la. maanaam yaa ngi prétendre à des heures supplémentaires ginnaaw ba nga respecté sa quarante heures euh, hebdomadaires xam mooy sa contrat de travail mm-hmm. Sénégal nag dañoo jàpp ni tarixa daf leen daf leen yëkkati ci kaw diine maanaam tarixa moo gën a kaw diine alors que mm-hmm. tarixa mm-hmm. c'est une voie dans religion bi nga xam ne qui a été bien formée taalibe nag fii Sénégal il souffre d'un d'un handicap majeur bi nga xam ne handicap bu grave la dans la mm-hmm. société mm-hmm. mooy ñàkk jàng ak ñàkk xam seen sëriñ la la woote mm-hmm. maanaam ku xam fi sëriñam li mu woote sëriñ bi wax dëgg yàlla sëriñ yëpp ils ont écrit alhamdulilah on a eu des marabouts très intellectuels maanaam c'est des intellectuels avant nekk ils ont fait la recherche ils ont produit après ils l'ont laissé aux disciples soo xoolee seen ay bind Euh, message la en fait. maanaam mhm. tout écrit est un message destiné. à mhm. à une communauté. Mhm. bu ñu war a jël jariñoo ko xam ne ah c' est ça la pensée de mon maître. sama guide lii la xalaat lii mooy position ci nangam ak nangam. fii la majorité de ce qu'on appelle talibé. loolu intéressé wu leen. li ñu intéressé mooy. jël ko mokkal ko di ko wéy. man pour ñoom chanson la. du fanatisme euh, xamuñu dara ci sëñ la la wax. en réalité et lii c'est grave. et lii moo moo dal. je vais dire lu pour quatre vingt dix pour cent de ce qu'on appelle aujourd'hui talibé mhm. fi nga gis un talibé xam ne jàngul alxuraanam sax setul mhm. mu taxaw bëgg a werante sur des questions existentielles des mhm. questions purement métaphysiques yi ne euh, ump na sax ñuy woowee ulamaaw yi donc ça dama jàpp ne euh, c'est une pour man échec la de ce qu'on appelle aujourd'hui l'élite religieuse euh, pour man war nañu jéem a xoolaat un peu la démarche damay xool toujours le cas du gàmmu man dama dem ba jamono parce que bu dee gàmmu da nga ñëw toog chaque jour on te voilà on te répète les mêmes choses ba mu nekkee ba mu juddoo. Mhm. ba ba ba ñu xaaree dënn bi. Mhm. bañ ñu ko ubbee raxas ko. Mhm. ba mu demee Bahira. mais pour man c'est pas c'est pas très intéressant ñu toog di parce que lii xale sax ko xam mhm. mais aujourd'hui il est question mhm. de d'actualiser la pensée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam donc Ibn Sallam mhm. daf ñu jox ay solutions ba ci aaxiru zaman naka nar a demee maanaam il a anticipé moom si jamono maanaam comment prendre son enseignement l'actualiser et résoudre les problèmes actuels que la umma est en train de vivre pour man lii foofu lañ toll et ça c'est une su xam ne à la hauteur de leurs ancêtres fii bëri surtout diw mais en réalité ils sont vides xamuñu dara mhm. diw boobu li mu doon jàngale sax xamuñu ko mhm. léegi naka la mën a impulser euh, ces dynamiques de réflexion yi xam ne qui sont très mhm. denses très deep donc lii euh, Sénégal moom c'est voilà c'est un pays spécial euh, léegi li Moustapha Diakhaté wax naam sax moom jéggalu na di wax ni ki na ko Sénégal baal ndax mënees na ko jàppee blasphème waaw euh, li mu wax xotti war ma diine daw dal ci kaw. li mu wax déjà war ko wax ndax c'est pas une voie autorisée. pour se prononcer sur des questions purement théologiennes. Mhm. maanaam lii c'est et puis c'était même pas le cadre. c'était ni le cadre ni le moment. et et sur des questions théologiques wax dëgg yàlla amu ci xam-xam c'est pas son domaine peut-être il aurait parlé de politique mais ci wàllu diine wax dëgg yàlla xóotu si jàng ko. Mhm. Euh, par rapport à ce qu'il dit. ce qu'il dit c'est totalement fou. Euh, et ce qu'il dit ay xadis yu bëri yonent bi sallallahu wax mm-hmm. te xam nañu ñun ci biir fiqh wala boog ci biir usul c'est c'est une c'est la science du fondement de la mm-hmm. religion mm-hmm. boo weddee waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam weddi nga yàlla euh, yàlla boo weddee benn si ay yonentam sax weddi nga mbooleem yonent yi maanaam quelqu'un qui vient te dire que man gëm naa tous les prophètes mais yoon si yàlla Muhammad gëwuma ko il n'a pas la foi quelqu'un bu taxaw ne man gëm naa alxuraan bi yëpp mais tel verset moom gëwuma ko wala tel sourate gëwuma ko il n'a pas la foi la foi est une réalité totale euh, et et et entière maanaam mm-hmm. mm-hmm. ah, elle peut pas être fragmentée len mm-hmm. tu saa dafa wax ay xadis yu bëri yi nga xam ne euh, dafa war ne li mu wax moom c'est fou déjà comparaison n'est pas raison ses moom déjà man xam naa parents yonent bi sallallahu papa mu ngi tudd Abdoulahi yaay mu ngi tudd Amina mais actuellement je suis incapable de le donc euh, on peut pas tamit il faut pas forcer yenn mbir yi nga wax dëgg yàlla du benn. Mm-hmm. il dit que moom ay parents dañoo judd ci l'islam. Mm-hmm. Euh, parents yonent bi judduñu ci l'islam. lii c'est une carence di amul. parents yonent bi ñu ngi judd ci li ñuy wax mm-hmm. euh, la période entre. un prophète ak mhm. un autre prophète mhm. kenn leen àtte ci diine mhm. euh, et en réalité sax suñuy wax islam dëgg si si si xaqiqa baat bi yonent yàlla Aadama ba yonent yàlla Muhammad tous les prophètes ci islam lañu nekkoon islam c'est la c'est c'est des gens qui ont cherché des noms naan kii chrétien la kii juif la mais c'est la soumission à un Dieu unique muy wax le monothéisme et puis professeur ñoom sax jikkoy jullit boobu dañ ko doon jëfee ay juut la ñu woon sax parce que ñu ngi nettali ni Abdullahi bi ñu hmm. ñëwee am na hmm. jigéen bu ko bëggoon sàkku sax mu bañ yooyu tamit manqué na tey ah. jullit day julli guddee ba jóg suba ngoon te loolu la yonent bi jàngale gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. di di kenn ci saaba yi nee na kontel na yonent bi sallallahu cent maam amu ci kenn ku ma sa njaaloo amu ci kenn ku nekkoon ci riiraange yonent sama wax na ni moom euh, yàlla daf ko tànn mu nekk leer yàlla tàbbil ko ci ay ndigg muy dem de voyage de de mm-hmm. lombe en matrice maanaam ci ndigg ak biir mm-hmm. yàlla il a toujours choisi jamono bu nekk ñi gën si jamono boobu ñoom ñoo porté leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. euh, masala bi am na ay ulama yu bëri nga xam ne ci euh, papa yi Ibrahim bu ñu wax ni euh, Azara mooy papaam fa la ñu xamee ne comme que Ibrahim il est dans l'ascendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon Ibrahim papaam mënul nekk Azara mënul nekk un politis ndax yonent sallallahu alayhi de Adama jaar si Siisa di jaar si ñoom ba egsi ci Abdullah papaam amul aucun yéeféer bu ma sa nekk bu ma sa nekk papaam maanaam maamam direct mhm. euh, amul benn jigéen bokkaalekatu yàlla war a njaalookat bi xam ne nekk ci ay maam yàlla daf ko mhm. tànnal euh, sa famille fi mu jaar sa lignée daf ko tànnal euh, turam daf ko tànnal ay jikkoom mhm. dafa yàlla dafa aar ba sàmm ay cëram alxuraan nee yàlla sàmm na bëtam sàmm na ay tànkam yàlla dafa sàmm lépp yonent bi sa sam yonent sam c'est pas un être ordinaire mm-hmm. ah, lii nag mooy la réalité de base bi nga xam ne Moustapha Sello maay Moustapha Sello Moustapha Diakhaté mm-hmm. ah, par sa parole là mm-hmm. weddi na ay xadis yu bëree bëri heureusement nag na que moom nee na tuub na euh, islam daf ñuy jàngale ñu at tawbatu tajub maqabla tuub moom vraiment euh, effacé na lépp lu ko jiitu waaye man dama jàpp ni am de la retenue mhm. sur certaines questions yi xam ne euh, on a des limites mhm. euh, de connaissance et des limites euh, de perception mhm. am retenue boobu moo gën après di jéggalu ji donc pour man yonent bi sallallahu alayhi du fookaay daal et ça revient à la question du blasphème aujourd'hui il y a des parlementaires qui travaillent mun naa tudd ko kenn ku mel ni tët sax euh, kenn ku mel ni Mamadou Lamine Diallo tekki ñun on est chance ces questions là mm-hmm. donc on travaille sur une question surtout blasphème mm-hmm. à travers si wàllu sëriñ déjà Sénégal mm-hmm. euh, ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mbooleem yonent yi ba ci yonent yàlla insaak ñëpp maanaam personnalité bi nga xam ne catalyse et qui agrège des milliers et des milliers de gens yoo xam moom la ñu gëm moom la ñu noyee mhm. on doit pouvoir le protéger ba kenn warul wax ci moom n'importe quoi ndax mën na am na solo donc ñi doon laajte li nga xamante ni moo di kàddu yu Moustapha Diakhaté yooyu mhm. euh, professeur leeral na ko professeur leneen la wax sànq moo di réew mi ku nekk day jël sa njël mhm. lu reetaanlu la mais lu exister la lu am la Euh, fan yi ñu ngi coow ci wàllu euh, ko xamante ni politique lañ ko gën a miine mu di mm-hmm. Ousmane Sonko. Mm-hmm. ak xale yu jigéen boobu di Adji Sarr. Mm-hmm. gis nañ la sax yenn position yoo si taxawee. Euh, situation bi bu mu amee. yow en tant que koo xam ne da ngay jàngat yëf yi. noo ko gisee d'un point de vue sociologique politique et tout ça. waaw question bu difficile la parce que. les deux sax au Sénégal semblent être éminemment imbriqués. maanaam la la la dimension sociologique de la question et la dimension politique. Mm-hmm. Euh, mais ba mu amee juste euh, lu waa ji waxoon nañ faut pas hurler avec les loups. dama ci am benn recul taxaw xool parce que euh, mbir mënoo ci wax te fekk amoo ci xam-xam. Mm-hmm. donc euh, alxuraan sax ñu koy tere. nañu wala taqfu maa laysa laka bihi ilm bu topp li nga xam ne amoo ci xam-xam. Mm-hmm. maanaam sooy prononcé waxal li nga xam. Mm-hmm. donc on n'avait pas assez d'éléments ni d'informations ma mujjee si maanu taxaw di xool de part et d'autre qu'est-ce qu'on dit. Euh, sama première remarque mooy il y a eu beaucoup d'incohérences et beaucoup de contradictions lépp li xam ne dëgg la pour man ça s'énonce clairement. les mots pour le dire arrivent mm-hmm. aisément mm-hmm. maanaam dafa am li nga xam ne warul am sax werante wala ay c'est-à-dire c'est su bëri mm-hmm. c'est-à-dire rek ak ay mais mooy que y a quelque chose donc moo tax ma am si recul nag di xool di xaar euh, jàpp ne mbiri dina leer alhamdulilah instant bi presque ñu yoon mi affaire dafa leer a pare <laughs> parce que euh, le le soo xoolee euh, je vais dire la translation des chefs d'accusation sax renseigne sur beaucoup de choses xam nga viol au Sénégal au minimum cinq la sinon maximum dix ans suñu fëggee viol un homme politique euh, te ñu am élection dans quatre ans donc lii moom vraiment. ça ça ça dit long sur euh, la démarche pernicieuse wala boog la démarche un peu filou. Hmm. de celui qui nous sert de président. waaw euh, hmm. ce qui nous sert de président actuellement. tu n'es pas le président. de président quoi ko jàppee un kidam. lu ñuy wax. pourtant président la président président mun mun ñu ko dindi. mais c'est que dëkk bi ñoo ko fal tamit. xam nga président dafa am président ci tour ci fonction ak président ci démarche ak ci posture. en fait euh, ci fonction ak ci fal c'est vrai c'est le président moo tax ma moo koy woowee ce ce qui nous sert de président donc mais dans la démarche ak euh, dans la posture maanaam li ñuy xaar d'un président euh, man je je ne le vois pas en lui hmm. lu xaar d'un président c'est quelqu'un bi nga xam ne qui est à l'attente de la nation qui qui travaille dans l'unification de sa nation di travailler dans l'image de sa nation à l'extérieur di ko hmm. dooreel di ko cëral kon moom nekkul ci loolu à au développement de son hmm. pays non il est totalement il est dans le contraire de tout cela maanaam c'est quelqu'un bi nga xam ne vraiment euh, li may wax ni yëpp sànq ba léegi moom maanaam lu safaanook loolu si loolu lay liggéey maanaam ki lu tax may il nous sert de président il travaille pour un agenda autre que celui du Sénégal ki muy ñi muy liggéeyal ay kilifaam nekkuñ Sénégal malheureusement donc hmm. euh, est ce qui kon nga jàpp ni y a une boo xamante ni ça hmm. vient de l'Occident bu ñu teg si Sénégal de tout temps hmm. am ne naa la léegi euh, rien qu'au Sénégal on a plus de deux cent cinquante entreprises françaises qui sont là

Mm-hmm. ndax ndox bii nii d'ici ay quarante cinquante ans mën na la gën a cher pétrole aujourd'hui sénégalais yi ñu ngi yuux di wax pétrole pétrole pétrole ce n'est pas extraordinaire mm-hmm. pétrole du lu yéeme mm-hmm. maanaam pétrole l'ère du pétrole mu ngi waaj a jeex et ñun fii c'est le cœur notre débat instant le monde parle d'eau su fekkee ne source d'énergie on parle d'hydrogène l'hydrogène est la matière la plus répandue du cosmos même dans l'eau eau sax H2O la du dihydrogène euh, dans les grands qui sont dans la high tech travaillent sur ces questions là ñun ñoo nekk dans des questions du dix neuvième et du vingtième siècle. Mhm. maanaam ñun dañoo bañ avancer en réalité mhm. donc ndox boobu nag. nga xam ne dans la dans tous les conflits tu verras la question de l'eau au centre. Mhm. sur la question palestinienne la question de l'eau est au centre. Exactement. dans l'histoire médiévale de l'humanité dans les guerres ki nga xam ne la le point d'eau mais il a de nous inhiber des, des virus wala des bactéries euh, pour après ay entreprise euh, ay ay ay laboratoire am ñoo jox ñu jox ñu ay ay ay ay remèdes mhm. on on donne ce ce bien là à quelqu'un bi xam mu ngi nekk di mettil les taxes mm -hmm. installation ndox au moins cent euh, de déplacement quatorze mille et quelques mm -hmm. triplé des a beaucoup de gens qui parviennent plus à payer des factures ici au Sénégal mhm. ñu leen di couper ndox mhm. parce que ndox boobu am na ñeen ñu ko soxla aujourd'hui donc soo soo gisee dëkk bi nga xam ne Euh, oyof na bopp à ce point là ba lépp lu stratégique moo xam ndox moo xam l'argent la monnaie. moo xam euh, les ressources stratégiques comme le pétrole et le gaz. lii yëpp danga koy jox ay jàmbur yi nga xam ne dañu ay sénégalais. dëkk boobu loolu du dëkk c'est un gros village. Afrique ñun fii lii c'est un gros village c'est pas un pays. donc euh, pour dire que. Euh, pour revenir à ta question. Oui. les intérêts internes au Sénégal. Mhm. le capital qui est présent ici au Sénégal. wax dëgg yàlla n'est ñi ko gën a moom moo tax je dis toujours que dëkk bi euh, société anonyme la. Mm-hmm. et société anonyme la bi nga xam ne l'actionnaire majoritaire aujourd'hui reste la France. Sénégal SA daal. SAII. c'est une société anonyme à irresponsabilité illimitée. personne responsable. na waar lu waaye neex def dara lu ci fekk. fi ànd nañu ànd nañu jiiñ ay milliards. régime PS ñu fi nekkoon sàcc yu mag yëpp ànd nañu ils sont là ils vivent peinard. régime libéral ñu fi nekkoon. Mm-hmm. nga xam ne ils n'ont jamais travaillé ñu nekkoon takk ay jabar di dund say oto mais la la la la morale l'opinion ne les pas buñ jugaatee ñëw laaj ay bar sax gars yi voté leen les gens hmm. trouver kii naka lay amee 5000 ci moom donc fii ñun on sanctionne pas sax ce qui nous vole donc dëkk bi y a une irresponsabilité daal bi nga xam ne wax dëgg yàlla sàcc daal dafa mel ni sénégalais yi bañ ñu kuy sàcc maanaam kuy sàcc te ñemaloo leen si li nga sàcc loolu la bañ ñoom mais bañ ñu kuy sàcc en réalité ah ah. Euh, leneen tamit euh, professeur moo di affaire Ousmane Sonko bi mu amee gis nañ taxawaayu assemblée nationale mhm. yàgg nañ ko jooy nag mooy mhm. la majorité écrasante mhm. bi am assemblée ba nga xamante ni tey njiitu réew mi lu mu bëgg a dogal bu ko jaarlee assemblée day sotti parce que amul mun a taxaw pour mun ko contourner tey taxawaay bii wàllum lever immunité parlementaire am bi. ndax mhm. yow assemblée dal na sa xel. waaw man dama bokk si ñu gëm nag ni wax dëgg yàlla. sur cette mascarade là qu'on appelle la démocratie parce que man gëmuma démocratie mais cette mascarade là qu'on appelle la démocratie le pouvoir le plus important de ce système politique là pour man c'est le pouvoir législatif c'est le parlement. Mhm. Euh, lu tax loolu parce que. Euh, trois choses yi dafa fondamentale te trois mm-hmm. choses yëpp assemblée kese koy def mm-hmm. la première c'est la fabrique c'est l'industrie de fabrique des lois mm-hmm. des lois et normes yi moo war a régir la vie sociale du peuple déjà lii du lu ndaw li war ñu ko confier n'importe qui te soo demee assemblée ay ñu laa rek ay dof ay golo dëgg-dëgg ñoo fa nekk ñi xam ne xamuñu lu géej gi di riir ñoo ñun yóbbu ñun pour ñuy tàccu maanaam xamuñu lan mooy loi ak quelle la teneur et la profondeur et la portée d'une loi ko de de contrôler l'action du gouvernement maanaam hmm. xam lan mooy budget xam lu tax ma war koo jox budget bi budget bi fan la war a dem lan lañ ci war a def ndax loolu am na njëriñ ci askan bi maanaam ce cet exercice de contrôle euh, budgétaire rek hmm, déjà hmm, nécessite des des capacités intellectuelles énormes euh, je ne pense pas que lopp quatre-vingt-dix pour cent de ceux qui nous servent aujourd'hui de députés euh, en sont dotés ñetteel ba mooy jox liggéey l'appareil judiciaire dans l'appel judiciaire si mu nar a code yeeg yëpp mhm. assemblée moo koy defal jox ko mhm. donc assemblée moo moo nekk si diggu dóomu diggante l'exécutif euh, ak le judiciaire moom moo leen defal ñoom ñëpp parce que mhm. la justice moom dafa na rek di appliquer li ko wax moom ne cherche rien donc lii nag boo amee ci dëkk ñu fay yóbbu ay quelqu'un bi nga xam ne ay nit yi nga xam ne nee na jànguma école jànguma alxuraan aw ma métier euh, tàccu ak topp benn politicien moom moo fi ba su fi toogee sax man diw laa fi toogal xam nga lii c'est extrêmement grave. Mhm. quand député te dit que. man du ma député. yàgg nañ ko dégg quand même diw laa yàgg nañ ko dégg député président laa lu ma président wax laay def kii xamul rôle am euh, et sincèrement parlement fii au Sénégal. ñu mhm. on n'a pas d'assemblée depuis toujours on n'a jamais eu d'assemblée. on a eu des gens yoo xam ne qui sont solde du président ba tey jii may wax ak yow. Mhm. boo xoolee loi yu sax. li ëpp ci pour cent loi c'est des projets de loi ce ne sont pas des propositions de loi. Mm -hmm. projet de loi mooy loi bi mu ngi jógee ci exécutif. Mm-hmm. maanaam président ko defar wala ay ministre am ñoo ko defar yóbbu ko daal à l'Assemblée ne voté leen ma lii. li mm-hmm. projet de loi teg dans un pays nekk ay proposition de loi soit député yi xalaat ko joxe ko. Mm-hmm. wala peuple bi xalaat ni loi nangam war na am ñu wut ay pétition bind ko. ñëw andi ko ne voté leen ñu ko. mais euh, fii euh, y moins de 5 pour cent qui vient dañuy ñëw matin sax dem seen président groupe ne ko tey président euh, mhm. njiit kilifa gi la la wax. Mhm. mu ne kilifa gi nee na lii mu lii mu bëgg daal ah yàkkamti na ko na ngeen ci gaaw. ils pour xaar ñu ne voté ñu ne ñu yëkk seen loxo ne oui. Mhm. des députés qui ont des problèmes d'expression qui comprennent pas lu ñuy wax fii Sénégal la ñu gis député bu toog ñuy wax ci FIFA ak ci budget. ministère des sports mu jël parole ne FIFA kan mooy FIFA FIFA rek di yëg dëkkam te bàyyi suñu dëkk. moom FIFA président de pays la. donc fii dëkk bi moom vraiment sëriñ bi. Mm. <laughs> man gëw ma ni on a un parlement. pour man la première réforme ko devait faire c' était d' abord euh, de supprimer. Mm. tout paiement aux, aux députés. Mm. li la tax déjà nulaar yeeg les pauvres rek les naxasaalekat yeeg ñëpp ils voudront plus être députés. Mm-hmm. déjà euh, nañ bàyyi benn champ bi xam ne ñenn ki ont réglé déjà seen ay mbir. jéem a xool ñu demee xidma seen dëkk parce que pour man problème bi problème service la mhm. maanaam xidma sa dëkk boo ko teg nguuru mhm. Sénégal fii nag lépp luy pouvoir on l'appelle nguur maanaam fii mhm. dañuy nguuru nguuru nag dimension noos la dimension bànneexu la alors que lu nekk nguuru c'est un service tu n'es pas au pouvoir mais tu sers le pays exactement man dama jàpp ni euh, paradigme yooyu déjà ñun on a des problèmes dans ce pays euh, concernant cette surtout d'un opposant les parlementaires vont le voter ndax euh, parlementaires yi sont les représentants de quelqu'un bi nga qui est clair sur la question de l'opposition bi Macky mm-hmm. Mm-hmm. il dit clairement que moom mm-hmm. dans sa vision politique de gestion d'un pays opposition amu fa place c'est ce qu'il dit en substance dans son programme que quand il dit qu'il va réduire l'opposition à sa simple expression ça signifie que moom dans sa gouvernance moo tax mu leen di fagaagal moo tax muy jàpp ñii di dàq ñee di exiler ñële di créer ay filtre ay parrainage ak lu ne parce que buggul opposition en réalité donc nag kii moom bu dee mooy kilifa wu ñee nekk assemblée sincèrement lépp lu fa ñëw ça va passer comme lettre à la poste bu joxee ndigal lañ koy appliquer bu joxee loi lañ koy voter hmm. euh, y a jamais de de commission parlementaire sur des scandales économiques y a beaucoup de scandales yi fi jaar fi nga xam ne affaire bi rek scandale bu extraordinaire la on a dilapidé de l'argent hmm. on a donné des informations stratégiques à une hmm. entreprise qui est étrangère c'est extrêmement grave dans cette guerre u àdduna bi yëpp guerre donnée la on est dans le renseignements yu fi nekkoon bu yàgg ba sont devenus des renseignements économiques. Mm -hmm. on est totalement dans la gouvernance euh, des données euh, dans dans données à caractère économique. ñu mhm. war a pour mën a gagner la guerre actuelle bu ñu dund. Mhm. Euh, ñun rek ñoo dese ba tey ay renseignements yi xamee ay xale si yoon la ñuy exploiter ay hommes politique. Mhm. di déglu ay communication politiciens et parce que comprendre ñu enjeu yi. donc euh, parlement boobu. man je sais qu'ils vont lever l'immunité mhm. alors que pourtant la règle dit que pour lever ko mhm. dañoo war a xool information yu jot ndax information yi sincère na ndax fiable na ndax loyal na euh, ils en ont cure mhm. ndax euh, dossier bi moom wax dëgg yàlla dossier bi leer na xam nga ku ñu ne dañ laa violé euh, médecin bi xamee moo war a set ne man kat kii ñi ma àndil dix neuf heures avant ma fi ñëw elle n'a eu aucun rapport sexuel lii c'est c'est extrêmement grave. Mm-hmm. actuellement ils sont train de faire euh, glisser. Mm-hmm. le chef d'accusation pour yóbbu ko ci atteinte à la sûreté de l'État donc ñii ils veulent simplement incriminer une personne. Mm-hmm. su A doxul nañ jaar B bu B doxul nañ jaar C. et chaque fois bu ñu jaar dañuy wane cuune bu mat sëkk bi nga xam ne dañuy ñu planifié lii. Euh, ils ont raté la dernière fois au neurones. maanaam <laughs> jënduñu ay neurones mu seen bopp yi dara dara tegu ci. donc euh, lii nag su amee si dëkk lii la. pour nous tous nag pour nous les populations yi xam ne qui sommes euh, dañoo jàpp démocratie gëm ko nous sommes vraiment tous en danger euh, mm-hmm. dans ce pays là mm-hmm. et man dama jàpp ni jóg nag dafa jot euh, mm-hmm. par rapport à ce régime de dictature là bi xam ne la Macky Sall def ci dëkk Ça a suscité beaucoup, beaucoup de tensions aussi, l'affaire mmh. Ousmane Sonko. En, en tout cas, l'affaire qu'il est convenu d'appeler Ousmane mmh. Sonko Adissar. Mm-hmm. ndax gis nañ ni euh, réew mi léegi wàllum activisme mu fi gën a commencé am ampleur. Mm-hmm. ndaw yi jug nañ fippu. Mm-hmm. mais est-ce que tamit professeur ku ne mun naa nekk activiste léegi da ngay gis koo gis rek mu ni activiste la. est-ce que jotul ñu redéfinir le concept d'activisme au Sénégal. waaw xam nga Sénégal dañoo mën a jaawatle man Sénégal moom vraiment nee la mooy dëkku mooy mooy mooy pàkk pàkk bi nga xam ne pàkku amalgame la xam man lii dama jàppetul Sénégal sax léegi dëkk man nee la c'est un gros village donc euh, activisme influenceur man suñu fils damay gis kay ko taxaw man je suis un influenceur je ne sais pas kan ngay influencer wala boog lan ngay influencer euh, je trouve que dañuy jaawatle lu bëree bëri dans ce pays li ñuy woowee activisme en réalité du activisme sax mais c' est c' est des sentinelles ñu si bëri ce sont des sentinelles yi nga xam ne euh, ay avant-gardistes qui disent que attention lii mu ngi am baaxul si dëkk bi wala boog di dénoncer mhm. am ñi nga xam ne ils sont des alerteurs di mhm. dénoncer mhm. donc euh, lii yëpp nag ay rôle la yoo xam ne tout citoyen normal engagé daf ci nekk man mii maa ngi ci euh, yow mii yaa ngi ci ñëpp ngi ci maanaam mhm. suñu gisee dul yoon dañ ko war a dénoncer mhm. bu ñu gisee li nga xamee jubul ñu am solution jàpp ni lii moo gën a baax mais dañ mhm. ko war a partager donc euh, mais euh, faire de l' activisme n' est pas facile parce que activisme dafay dafa boole euh, benn lobbying bi nga xam ne lu jafee mën a doxal la dama lay jox exemple bu ndax da xool dëkk yu dëkku tubaab yi wala da ngay am Europe nga xam ne les centres décision parce que foofu y a les centres de décision qui ont été centralisés donc fi ñuy jëlee décision yi Euh, euh, euh, membre bu nekk wala bokk benn élu bu nekk. Mhm. entreprise yeeg organisation yi. ligue homosexuelle yeeg yëpp. dañ ci dañ ciy teg une personne bi nga xam ne pour mu leen koy influencer la maanaam ils font du lobbying à l'intérieur des centres de décision. Mhm. Mhm. il faut du lobbying sur des sur des personnalités publiques. il faut du lobbying même dans des institutions internationales. pour mën a orienter seen bëgg-bëgg ñoom ak seen agenda parce que ils ont un agenda. am fu ñu war a dem donc pour être activiste déjà il faut nga am un agenda c'est-à-dire que je veux que ce pays arrive euh, peut-être d'ici vingt ans euh, ñu am fi euh, un président islamiste supposons lii dafa laaj un activisme. Mm -hmm. activisme boobu dafay jaar par un lobbying très puissant bi nga on va essayer de voir comment ut ngemb sax ñenn pour far leen. Mhm. la mise en garde. d' accord euh, beneen euh, laaj ñu ngi waaj a agsi si njeexantalu émission bi mais mënuñu ci euh, ñàkk wax. Mhm. moo di wàllum vaccin bi professeur. sànq yaa ngi mhm. koy junju. tey li gën a jaaxal ñun ñi moo di feebar bi ñu ngi wax ni Chine la jógee. te mhm. Chine boobu moo jox Sénégal tey vaccin bi mu toll si mhm. deux cent mille doses yoo xamante ni agsi na démb mhm. donc vraiment war nañ ci mun a taxaw am luñ ci luñ ci luñ ci càmbar est-ce qu'il n'est pas contradictoire tey dëkk boo xamante ni fa la mbas mi jugee mu jox ñu vaccin tey waaw euh, sujet bu bu am solo bi tam dafay wane tam ni on a une carence de scientifique yu sérieux dans ce pays ndax boo demee dëkk yu mel ni ay France nga xam ne mooy suñu bàjjen Euh, nu mu lay wax ne mooy bàjjan France sax moo ñu kilifa fii foofu su xiinee sax day taw fii gars yi dañoo gëm France ma nga xam ne France dafa extraordinaire seen ay bët mais boo demee France tu vois que le débat intellectuel est de très haute facture y a eu même des des sessions parlementaires sur ces questions là dañuy woo des spécialistes ñoom docteur Raoul yi ngay dégg ñoom ñëpp ils ont été convoqués au Sénat à l'Assemblée pour débattre des questions de santé moom euh, comme je dis rek euh, ce de de député ñoom dañoo conscient wu sax la moo xew ñoom en fait dañoo xamul lu xew sur la question des vaccins man dama bokk suñu man gëwuma vaccin Covid. Mhm. gëwuma ko scientifiquement il n'est pas prouvé il n'est pas démontré. pourtant nee nañ mooy solution bi de. ce n'est absolument pas une solution. aujourd'hui même au Sénégal sooy xool chiffre Sénégal yi. Mhm. sur cas c'est pas vingt quatre mille xaw ma vingt cinq mille cas ñi nga xam ne qui été qui ont qui ont Covid. Mhm. depuis mars ba léegi. plus de donc euh, kon professeur yow doo ñaxtu doo ñàkku yow non absolument pas ni man ni sama famille kenn si ñàkku donc euh, y a des traitements qui sont là qui marchent dans le monde entier yemul kas si hydroxychloroquine y en a d'autres euh, y a y a y a y a des traitements qui viennent du Japon y a euh, traitement yi wax dëgg yàlla bëri na mhm. ils sont très nombreux yoo xam ne mhm. euh, invectomine y beaucoup de traitements yoo xam ne qui marchent dans le monde entier mhm. te nag aujourd'hui le vaccin man foofu dama fa am grand Euh, aujourd'hui sur la base en tout cas du corona il y a quatre grands il y a, il y a, il y a des formations vaccinales yoo xam moom la ñuy proposé si àdduna bi. Mhm. yii c'est des vecteurs viraux. Mhm. yii c'est des euh, virus atténués wala wala wala bokk euh, yi xam ne dañoo dee. Mhm. dóor si biir yaram. ñii c'est des virus à c'est des c'est à ADN et ARN. yii c'est des vaccins à à vecteur protéine. Euh, virus atténué. xam nañ ko ñu ci histoire ci taarix xam nañ ko ci science. c' le principe même de base. de la de, de, du déclenchement de l' immunité. bi nga xam ne bu artificielle la. c' est à que feebar nangam dañuy jël doomu jàngoro bi koy joxe ñu rey ko wala ñu wàññi dangaram wala ñu dindi lay lore ci moom. ñu doog sa biir yaram pour provoquer une réponse immunitaire lii on le sait lii on mënuñ ko nangu. sur le cas du corona euh, beaucoup de vaccins yoo xam ne moo ëpp bi euh, ils sont pas à partir de ce Mm-hmm. c'est des c'est des vaccins à ARN messager. Mm-hmm. lii c'est extrêmement dangereux. Mm-hmm. on l'utilisait li sax du vaccin euh, mérité wul le nom de vaccin. li Alexandra Antiocote di wax naan. Euh, c'est des thérapies géniques mais ce ne sont même des thérapies géniques parce que thérapie on on on donne une thérapie à quelqu'un qui est malade. quelqu'un bu dara jotul war na la jox thérapie donc lii c'est dangereux et mosuñu ko utiliser si doomu aadama tamit dañu ko war a xam depuis que cette technologie là ñu koy xalaat on l'a utilisé sur des tomates on l'a fait sur des carottes mosuñu ko def ci doomu aadama c'est la première fois ñu koy développer sur des si doomu aadama ñoom Pfizer ñoo ko def mhm. euh, ak ñoom Moderna ak ñoom BioNTech euh, Pfizer mhm. fayloo lañu ko yaa même pas longtemps deux de dollars mhm. sur treize produits yoo xam ne il a menti. dans mhm. sa communication mhm. ko la. y de milliards. Mhm. quelqu'un bi nga xam ne fen sur treize produits. man su ma ñëwee andil ma benn produit bi testé naa ko y a une dinaa ko gëm. <laughs> mais man waruma awma droit gëm ko sax scientifiquement sax waruma ko gëm. vaccin ARN ce que man j'ai entendu un médecin temps yee sur benn benn plateau. muy wax mais li mu wax c'est totalement faux. c'est totalement faux dafa ne hmm. vaccin ARN am na ñuy wax naan euh, mën na sax change sa ADN. Hmm. waaye loolu mënul nekk. même ñu ko fa xam-xam gën ko taxaw sur la sur la génétique. Hmm. Euh, dañoo dañoo prouver scientifiquement ce fait là. li koy wone dans les protocoles les recherches yoo nga xam ne ñoom Pfizer ak ñoom def nañ ko. les personnes HIV yoo nga xam ne dañoo am sida. dans les phases test. Hmm. gars yi leen dañ leen tegoon de côté ils ne les pas utilisés. Hmm. ils n'ont pas pris en charge les pour tax loolu parce que les HIV ont dañoo am ay rétrovirus si ñoom ils ont ce qu'on appelle la reverse transcriptase. Hmm. cette reverse transcriptase dafay def lu muy def moom mën na jël ARN codé ko yóbbu ko ADN mën na jël ADN yóbbu ko ren donc li muy wax nii c'est totalement faux c'est que dañoo nekk si jamono bi nga xam ne. Mhm. soxlawul nekk un médecin pour comprendre ce qui se passe. dafa mel ni mhm. Mhm. soxlawu ma nekk euh, euh, cuisinier pour xam lan mooy lekk bu neex. peut-être a togg nag. moom neex na a beaucoup de virus yoo xam ne. Euh, lu ñuy wax les les yooyu tamit ils nekkee sérum te ils sont pas détectables. lépp 25 pour cent virus yi foofu la nekk mën nañu di di di di di changer ARN en ADN. Mhm. donc aujourd'hui changer le matériel génétique de doomu aadama ci benn vaccin dama jàpp ne c'est dangereux et c'est grave. Mhm. la preuve encore ñoom ñii di développer vaccin ARN. ils disent que femme enceinte ñoom jël ñu koon en charge seen études. oui ils déconseillent ñu piquer femme enceinte parce que mu ngi yor bébé instant yi. Mm-hmm. ils déconseillent xale femme buy nampal. Mm-hmm. ne ko tamit kenn waru ko tamit jox vaccin mm-hmm. parce que ils sont conscients c'est que ñoom dofuñu. ils sont conscients de ce qu'ils font. ils donnent certaines informations peut être nëbbuñu yeneen. donc man vaccin yu am yëpp aujourd'hui vaccin développé en daf lay dimbali di la jox arme. Mhm. pour feebar bi bu ñëwee seeram nga mën a faire face. Mhm. feebar bi nga xam ne ñoom ñii di ko gëstu ñooñu xamaguñ ko bu baax. Mhm. on est en train toujours xamaguñ ko ba tey. ba ñii ñu ngi wax ne si labo la jógee ñu wax ni xamuñu ban moom moo moo moo moo génnee feebar bi. primo secondo mu ngi muté. il y a chaque jour. man Sénégal laa gisagul variant sénégalais maa ngi gis variant dans tous les pays. <laughs> variant par rapport à quel variant Exactement. Aujourd'hui, des laboratoires sont en travailler sur benn virus universel pour mën a combiner l'ensemble de ces vaccins là toutes variantes yëpp ñu mën ko mmh. recenser. Mmh. pour am une réponse euh, unique à mmh. toutes ces variants mënul nekk. donc man y a beaucoup d'éléments yoo xam de manière scientifique parce que nous sommes scientifiques. avant d'aller faire l'économie nous sommes scientifiques. donc avant euh, si science que c'est bu nous dit aujourd'hui la vitamine D. Oui. protocole zinc y' beaucoup de protocoles yoo xam ne des grands ils ont fait des articles. ku dem dans le journal of économique euh, bu England. Mhm. di gis des publications les médecins sont en train de publier. Mhm. malheureusement ils sont tous censurés. personne ne parle de ces découvertes là yoo xam qui sont faites pas plus tard que semaine bi passée en Guadeloupe. Mhm. Euh, mais ils ont fait une découverte extraordinaire ñoom yemuñu sax léegi si si Mhm. ils ont cherché l'enzyme bi nga xam ne mooy permettre mhm. le virus de pouvoir euh, utiliser le matériel génétique mën a multiplier wu mhm. dans la cellule ñoom ils ont cherché le moyen d'inhiber cette enzyme là ba du may euh, vax mm-hmm. virus bi mën a reproduire. Mm-hmm. et puis avant d'entendre parler dafa mel ni ki kon euh, xel mënees naa tey parce que mm-hmm. buñ nee vaccin bi. ci suñu mag ñi lañ koy jëmale. troisième âge bi parce que nee nañ c'est la couche la plus vulnérable. alors que Afrique majoritairement. dañu bëri ay mag te fonk nañu mag aussi. effectivement euh, complot bi ñuy wax vraiment derrière. Pfizer existant ñoom Astra ñoom AstraZeneca ak ñoom Pfizer dañoo def étude dans l'étude phase un deux trois yëpp. il n'avait pas pris en charge les personnes au-delà de 75 ans. Euh, les personnes de de ans euh, sont c'est 3 c'est 3 la population. Ils sont pas nombreux, mhm. n'est-ce pas soo xoolee doses yu présent euh, commandé. deux cent mille ak yi ñu yalwaan ak yi nga mhm. xam dañu koo yalwaan ndax yu si bëri. <laughs> ay yalwaan la ndax ñu am ay njiit ñàkk a ah, jom. dañ ko jënd di. yàlla ñu nattu. dañ ko ay njiit yu ñàkk à de deux milliards d'ailleurs lañ ko jënd waaw xam nga le ministre bi muy njëkk bind. waay don la wax don la wax waay dem ba si biir mu ni dañ ko jënd. moom laay woowee la maquillé. Hmm. dañ dañu tàmmal fen chaque fois ils mu disent par la vérité. Hmm. dafa njëkk wax ni dañoo ñoo jox don. waay euh, une agence française a publié. Hmm. Euh, que deux virgule deux milliards. waay mu daw gaaw effacé ko publier waat déjà xam nga. manque de confiance chaque fois damay wax ne manque de confiance bu sénégalais am bañ a gëm autorités yi. ci hmm. wàllu virus bi du virus bi la gars yi gëmul maanaam ñi ñuy wax ci virus ñun dañu gëmatul man dañoo tàmm wax lu dëgg en réalité donc euh, le prix xam nga su demee ba maison de vaccin yooyu yëpp ñoom ñëpp. Hmm. Hmm. ñu dem ak coalition ba euh, gagné au niveau de l'OMS ak au niveau de tous les états nekk ñoom ils n'auront aucune responsabilité ci tout effet secondaire sur les vaccins maanaam une maison est responsable des effets secondaires qui découlent de son produit lii c'est un principe euh, qui est connu et accepté de tous pour Covid bii nag dañoo ne comme que dañoo travailler à la hâtive pour créer un vaccin ils ont cherché que tous les états signés ba pare nangu ni lépp lu mënti xew ci vaccin yi nous serons pas responsables état yëpp signé ko mhm. dama la bëgg wax ne la beaucoup de points yoo xam ne ku ko xool sincèrement sa xel war na tee nga xam ne man lii pourquoi ñu mhm. nii ñoom mun ñu ko régler Euh, en Europe. Mhm. Euh, corona bi c' est pas le premier corona bu ñëw ci àdduna. on a eu le SARS-CoV-1. SARS-CoV bu feeñoon Chine. Mhm. Euh, année début année mhm. 2000. on a eu le MERS. bu bu feeñ Arabie. ñun ñëpp amuñu. amuñu vaccin tey sars cov amuñu vaccin ba tey. donc et y a un phénomène grave bi nga xam ne. maa ngi attention ñu bëri bëri. muy c' est vrai que la la le vaccin rôle mooy créer une réponse immunitaire pour nga am ay anticorps mhm. mais sur le cas des corona ak yenn type de de de maladie mhm. on peut avoir des anticorps non neutralisants parce que anticorps yi ñaar la c'est un anticorps neutralisant mhm. bi nga xam ne moom su feer bi ñëwee da ko xàmmee directement dóor ko dal ci kawam wala un anticorps non neutralisant mooy anticorps bi sa yaram defar ba tey mënul jaamarloo ak doomu jàngoro bi soo baa boo amee anticorps non neutralisant euh, feer bi risque d'être plus violent ci yow donc il y a beaucoup de choses yoo xam waxuñu ko nit ñi ndax effectivement ba tey c'est en étude ils veulent noyer cette gestion là sur un débat sur le vaccin un débat bi nga xam ne man dem ba may gis le président ànd ak toute sa délégation euh, dem pour teeru teeru mm-hmm. vaccin mm-hmm. j'ai eu marre sax en réalité dafay wane ni kon ñii ils n'ont rien de sérieux à faire dans ce pays am dem teeru ji ay vaccin euh, tout le gouvernement ak toutes les personnes de ce pays mais li c'est extrêmement li si àdduna bi fii <laughs> c'est quand même ridicule il manqué que ay ay jung-jung yeeg ak tama yi mm-hmm. pour ñu xam ñu ngi si euh, et puis la te ñu ngi koy bañ c'est extrêmement ak famille am euh, waaw doy waar doy na finalement du ñu mën a li ñuy wax li xacc ci ci ci li rëy ci duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin bi mm-hmm. vraiment c'était un plateau riche d'informations Euh, professeur agsi nañu ci njeexantal bi. ñu mhm. bàyyi la rek nga wax sa kàddu gu gu mujj gu dul mujj sax ñaanuñu ko yàlla. waaw euh, sama kàddu gu mujj nag wax dëgg yàlla. mu ngi dem ci rappeler les Sénégalais. qu'aujourd'hui nous sommes devant un état bi nga xam ne. Euh, qui confisque nos libertés individuelles et collectives. le droit de se mouvoir sur le territoire, le droit de se déplacer. on est en train euh, de confisquer beaucoup de pouvoirs, le droit de se rassembler, le droit oui. de manifester. Mhm. Il y a beaucoup de choses, sous prétexte de la lutte contre un virus, mhm. euh, le dictateur qu'on a dans ce pays-là est mhm. en train d'opérer pour, pour noyer toute, euh, euh toute revendication et toute lutte. Je suis Sénégalais, euh, un collectif citoyen est né. tuddee seen bopp ñoom le peuple. le peuple oui. Euh, ñoom Clédor Sène nekk si ñoom mm-hmm. Abdou Karim Xurum Xaq. ñoom Assane Diouf ak mm-hmm. beaucoup de gens yi xamee. Mm-hmm. ñoom Dambot ñëpp dañ leen a xam. ci joxe seen bopp addiye pour taxawal dëkk bi. nit ñi ñii nit gënu leen ci dëkk bi. ëpp leen njëriñ ci biir réew mi. Euh, ñi wara nag préparer wu. Euh, la résistance. c' est bu nekk si constitution Sénégal maa ngi gis gars yi ba di wax ay atteinte sûreté. atteinte sûreté c' dans le bloc de constitutionnalité du Sénégal. dafa am ay traités yu Sénégal signé bokk na si traité euh, révolution française bu 1789 dans les quatre droits naturels dafa am benn droit bu fondamental bu ñuy wax le droit de résistance à l'oppression hmm. l'oppression mooy bu ñu la xañee sa ay liberté fondamentale nga nga am sañ-sañu résister pour ñu delloo liberté yooyu mën hmm. na ñun liberté sax am ay élus locaux amatuñ ko instant yi depuis 2019 mandat hmm. locaux yi seen mandat jeex na kenn xamul kan la war def élection à part euh, xam moo xam instant yi kañ ay prochain moom que dafa wax ne moom bëggul élection fii ba 2024. mais c' est extrêmement grave bu fekkee dañoo wax ne démocratie di nekk euh, le calendrier républicain le calendrier électoral. Mhm. di valser si humeur benn nit. Mhm. lii c' extrêmement grave et atteinte bu atteinte gënu ko rëy. Euh, ma jàpp nag ni ñun askanu Sénégal ñoo war a choisir rek de deux duñ fi ñaar mi dafa fi mën nekk. soit on dira non à cette dictature-là rétablir ce pays fu ko Macky fekkoon en 2012 parce dafa fi fekk benn pays bi nga mhm. wax dëgg yàlla stable loon te amoon na benn semblant de mhm. moom wax na fi wax yu gën a grave Ousmane Sonko wax en 2011 mhm. Abdoulaye Wade jàpp ko ñu defañ fi manifestation yu gën a ngan si dëkk bi diggante ba ci ay projet Macky euh, Abdoulaye Wade pourtant terew ñu mag euh, ñu pare jàpp ñu donc euh, delloo dëkk bi ci état démocratique bu ko Macky Sall fekkee mhm. wala boog ñu toog croiser les bras noppi nangu xam ne lii ndogalu ndogalu yàlla ñu muñ ko mhm. ñaaree fi nekk mhm. donc il nous faut kon pour faire face parce que kii ñu am en face euh, il veut faire la dictature et ko soo seetloo daaw ci 2020 bokk na ci première commande yi mu def sur les sur les fonds Covid en avant ceeb yi li mu njëkk jënd mooy ay armes Sénégal première commande bu mu def il l'a fait à Taurus sur maison d'armement bu nekk Brésil pour pour la pandémie Macky Sall ay pistolet la njëkk jënd pour yokk ko armée kuy jënd pistolet ko xeexul virus. Hmm. kooku il est dans une autre dynamique. donc il faut nag sénégalais yi comprendre bu baax les les les les les actes que pose actuellement ce président là. Euh, ak ni mu nekk di faggaagal. ñëpp ñi nga xam ne ñooy sentinelle ñuy kaas di wax. war ñu mën a comprendre kii fan la ñu bëgg yóbbu. loolu nag ñun kese ko mën bopp ay malaaka du wàcc régler ko mhm. ay jinne tam du ñëw régler ko wax dëgg yàlla il nous faut être unis aujourd'hui encore plus que jamais mhm. pour faire face à une dynastie bi nga xam ne qui se profile mhm. et wax dëgg yàlla ñu war ñu koo nangu incha allah donc euh, merci beaucoup ci dalal bi ñu dalal maa ngi am lool ci ñëw si kër gi euh, c'est la première fois et j'espère que ce sera pas la dernière fois incha allah euh, xam ne qui ne censure pas l'information qui le micro à des gens qui ont d'autres yàlla leen yàlla saxal ci yoon boobu yàlla bu leen saay-saay yi nga xam ne dañuy yor xaalis ñoom mhm. euh, yàlla bu ñu leen génnee ci mhm. dynamique bi ngeen nekk yàlla na yàlla barkeel kër gi incha mhm. allah ba mu màgg euh, bokk ci ñi war a leeral askan bi euh, di di di participer ci éducation populaire askan bi donc jërëjëf a d'accord merci beaucoup mu nekkoon professeur yaakaar nañ di ngeen am contenté di ñu toppaat fii ci Equivox TV ñu leen di jox jox rendez-vous très prochainement incha allah.